mooy wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee may nit alhamdulilahi rabil bi ma yàlla defee may jullit alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee may doomu Tiwaawan alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla defee ma jokk ci xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla boolee ma bokk ci askanu lépp bien que ni ab lébu laa boo xam ni lébu kayorien la waaye surtout alhamdulilahi rabil alamin bi ma yàlla mayee ñaari wayjur yu tudd Abdallah Mbeng ak Ayda Siise meññi ma maam ay maam yu tudd Babacar Mbeng ak Tafsir Abdou Siise ma sante yàlla loolu bu baax wax ni nit ku ne sa dund yàlla moo la koy trasel man su ma xoolee sama àdduna ni mu tëddee damay xam ni yàlla lu mu namm ci yow rek moom mooy am alakul yàlla bi yàlla defee ma am baccalauréat série C ñu orienté ma mat physique à l'université yàlla dañu woon du ma def math physique parce que sama professeur nee woon na ma da nekk prof math ma réorienté wu dem defi sciences économiques bi may def concours bu mel ne ENAM soo defee science ko inspecteur du trésor wala impôt et domaine ngay xalaat ba ma duggee ENAM yàlla réorienté ma ma dem defi nekk administrateur civil option collectivité territoriale bi may def option collectivité territoriale mooy waru moon dem commandement territorial ba ma génnee yàlla orienté waat ma jugalaat ma commandement territorial mën naa koy tegalee noonu si sama dund bis bu ne yàlla moo yor sa destin moo lay orienté ba ma defee commandement territorial it kon yàlla dafa mel ni orienté wu ma woon ci wàllu politique wante un an avant Ablaye Wade di daanu lañ ma def directeur de cabinet ministre de la famille Aïda Mbodj ko xam-xam ni ministre bu politique la ma nekk ci environnement politique ba président de la république Macky Sall ñëw duma ci ñëwaat ma dugg ci wàllu politique bi en résumé ba ma ciy dugg it dama duggoon rek pour jàppale ko kon nag su ma nangoo ni 2014 dama ñëwoon di jàppale président de la république Macky Sall ndax wóolu bu ma ko wóolu ci ni mën na jëmale kan Sénégal kanam ci xam bu ma ko xam avant sama xel nekkul woon ci mairie yàlla indi mairie bi ma accepté ko doxal ko juróom-ñaari su ma gëmee yàlla bu dee li may woote ci man dëgg la su ma toogee juróom-ñaari di utaat mairie bi pour des raisons yoo xamante ni maa ko xam yàlla ni ma duma yow keneen la dama koy accepter nangu ko bu baax a dama koy nangu à cœur ouvert gis ngeen affaire bi mun naa ko waat nit ci ñii ma jàkkaar loolu la gën a diis que ci man parce que nag soo amee jaar-jaar épreuve yu ne nga jaar mais surtout nga nekk jullit am ngëm-ngëm am na loo xam ne mënul dis yow àdduna lu ñëw rek leçon lay doon ci yow kon ñi ngi nangu que ñun dagaan nañ baatu askanu Tivaouane ngir intérêt Tivaouane nangu nañ ni waa Tivaouane def nañu beneen choix nit président Demba Diop si moom lañ tànn pour def ko mairie Tivaouane yàlla na ko jig yàlla na ko yàlla jàppale ci mission bi yàlla na ko yàlla defal ndam ci lii mu dugg def ay réalisation yu mag c'est notre seul parce que ñu ne Tivaouane gi képp koo xamante ni jóg nga pour defar ko dañ lay ñaanal nga am ci nga am ci ndam bien que ni je réitère la ma doon wax ci campagne bi mooy suñu bopp lañ ci gënoon a wóolu waaye yàlla nag population yi nee nañ ma du yow lañ ci gën a wóolu diw lañ ci gën a wóolu accepté nañ ko ak xol bu laab di am yéene yu rafet jëme ko ci ñëpp di ko féliciter di ko ñaanal yàlla mais di remercier ñi ànd ak man depuis ma nekk ci wàllu politique di ma jàppale muy le bureau municipal ñaar ñi ngi fii toog le premier adjoint le deuxième adjoint le secrétaire municipal mais également l'équipe municipale conseil municipal bi nga xamante ni nii def nañu suñu conseil juróom-ñaari at mësuñoo ñàkk korom mësuñoo voté contre loo xamee indi naa ko parce que lépp intérêt Tivaouane la woon ma sant leen gërëm leen ci loolu gërëm askanu Tivaouane bu baax ci cofeel bi nga xamante ni nii wane nañ ko jëmee ko ci ñun je pense que ku gis suñu pré campagne ak suñu campagne ni mu demee xam ni ay la yéen résultat yi mbettal la ci ñëpp mbetteel la ci ñëpp dinañ ko analyser xool lan moo doxul xam nañ ci yu bari yoo xam ne duñu mel ni ku ñàkk ñànki dañ koy waxtaane xam nañ ni on a travaillé du côté de la massification on a eu on a travaillé du côté des militants et du militantisme sans travailler du côté de l'électorat c'est différent tey salle bi mën na fees ñi fi nekk fekk fukki nit ñoo am carte d'électeur bu dee liggéeyuloo ci côté électorat après day doon jafe-jafe mais dañ cee demoon ak yaakaar ak yéene àdduna nag lu ñëw day nekk leçon pour ëllëg donc ma remercier ñépp ñi nga xam ni yaakaaroon nañ ñu continuer di ñu yaakaar ba tey ci Tivaouane remercier leen wax lee nit ni wax naa ko suñu meeting bu mujj gannaaw defar Tiwaawan mu jëm kanam suñu engagement politique bi nga xam ni mi ngi jóge ci président Macky Sall bougé wul d'un iota le projet communautaire politique bi ma doon wax tey lay gën a taxaw on va le faire de manière efficace sans bruit sans pour autant faire écran ou entrave liggéeyu équipe yi nga xamante nii ñoom lañ fiy teg lii di suñu parti muy APR lii di suñu coalition muy Benno Bokk Yaakaar ba ñu paree ci résultats yi lañ commencé di réfléchir ak di liggéey te naka la ñuy def pour renforcer ko ça dama bëgg mu leer ci bopp ci bopp ñëpp causes yi dinañ ko analyser am na lu luñ ci xam y a des facteurs ci côté bu ne des facteurs qui sont intramuros yoo xam ni c'est extramuros yoo xamante ni c'est divin yooyu yëpp xam nañ ko dinañ ko analyser mais daal mu gudd mu gàtt mu gudd mu gàtt mooy nangu nañu ndogalu yàlla te incha allah mais incha allahu taala parallèlement la ñu taxoon a jóg muy Tiwaawan jëm kanam li ñu taxoon na jóg muy renforcer le président Macky Sall jàppale ko jusqu'au bu loolu tey lañ ci gën a taxaw loolu bëgg naa mu leer si bopp ñëpp.